àq baal nañ leen découverte tabaski 2019 ñu amal mbégte ànd ak yéen mbokk internet yi ñu seetaan ci 28 pro euh, sunu numéro nag ñu ngi ñëw fii ci Touba HLM fekk fii sunu xarit sunu wëllëre sunu sëriñ ñu am mbégte bu baax di ko dalal ci euh, spécial tabaski bi te naan ko baal ñu àq baal nañ la yàlla nañu boole boole boolee baal ñu teew ak ay at yu bari di jégalu bu baax baax ci dérangement bi Mame Faty Mbacké ñu gën ko xam ci Mame Faty Sidi Euh, gannaaw bi ñu la nuyoo di la dalal ci 28 pro ñu amaat yéene ñëwaat fii waxtaan ak yow ñu 28 pro ñu lay dalal te bàyyi la nga nuyoog askan wi lay seetaan. aùzu <laughs> billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sante yàlla jënd ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Serigne Siri. mooy mu yàgg fi loolu te wér ak njaboot gi ak taalibe yi ak ñëpp ginnaaw bi loolu jàllee yéen tam ñu ngi leen di fay di leen dalal di baalu nii ñi di leen baalu àq te leen baal àq waaw. alors euh, tabaski ren bi noo ko noo ko dundee euh, moom Fatou Seye nan la tabaskee ren ak fu mu tabaskee. waaw moom Fatou Seye de fu mu tabaskee mooy Touba HLM. Uh-huh. fi ko ñëpp xamee foofu la tabaskee. dund ko comme ni ko taalib yi fa dund ak murid rek mu nekk mbégte ndax yàlla dogal na mu fekkuñ ci jàmm ñu tal ko man ko def ko nañ ko daan defee. Mhm. alors euh, tey buñ doon wax maanaam euh, j'espère que bi nga bokk yàgg nga ko fete fii ci Touba HLM. Mhm. Euh, mbokk yi ñëw nañ la waxtaan ak yow am na ñu la seet si. Mhm. noo dundee journée bi tey bi waaw kontaan rek ak mbégte xam nga kontaan ak mbégte moom foofu la mën a yem ndax xam nga lu doy ni tabaski feet la boo xam ne ku ne yaa ngi koy defee sa kër kon su ma ko defee fii ñi ma bokkal bàyyi ñëpp mën naa ni genn wàll gi yëpp ñëw sama kër seet si ma tey loolu mbégte la ci man te loolu am na tey fii sama kër ñun la def dëgg-dëgg noo ko dundee avec euh, heure añ bi heure comme ni ko ñeneen ñi lakk bi <laughs> alors kon moo doon fees da nga wut fees cadeau wala ci sa doom bàyyi ñoo doon ñoo futteeku ne xaar ñoo ñi jëw jàppale la est-ce que yow tamit dund nga loolu tey. déedéet sama doom baay moom du ñoo feesal ndax ñoo ñoom samay sang lañu. Mm-hmm. waaw mais nag samay taalibe ñoo ma ko doon defaral waaw. mais nag bi lépp pare man nag samay doom bàyyi ñàkk bokk di xewlu. Ah, mais na noo gis xam nga waroon nga ñëw nag waroon na noo fekk nag nooy nooy noo koy kiiyee noo koy noo koy xam nga léegi am na ñoo jigéen ñoo xam ne bàyyi kenn ah, en fait mu mu nekk ci waañ bi wala kii dañuy am euh, yéene wala boog loolu daf leen di nekk quoi dañuy am amour bi xam nga. mu neex leen ñu dugg ci waañ bi di dindi maanaam comme euh, euh, kii soxna bi teg ko fee mhm. ne xaar tey daal ma nekk euh, maam Fatim ñëpp boo xam ne ni maanaam dama mel ne dama dama nekk daal di jaayante daal waaw loolu moom am na moom ndax man moom dama bëgg waañ ndax ci loolu lañ ma yar te loolu laa xam moo tax dama man même man bu dara xewul sax sama kër du ci man may togg lan la ñuy wax ci tabaski ah tabaski dafa nga ni jox bëri moom <laughs> ne ko tabaski moom li ñu ci wax bëri na mais li ci ëpp solo daal mooy muy euh, ñu feete ko ak xale yi ñëpp bëgg kontaan loolu ma defal ci teraanga pour bëggal leen rek nga def ko. Mhm. xale yi bëgg nañ xale yi bëgg nañ alors ñu lay jële jege ji say mbokki bopp am nañ ci ñoo xam ne maanaam dañ naan kii kat tabaskee na xaru tant de millions xaru tant de mille ah, ñeneen ñi ñi nga xam ne maanaam parfois dañuy am jafe-jafe am jënd sax li nga xam ne moom mooy. buum wala béy. Mm-hmm. Euh, noo dundee journée boobu noonu ak sa maanaam xalaat est-ce que sa xel dem na ci ñooñu. waaw man balaa sama xel a dem ci sama bopp sama xel ci ñooñu lay njëkk a dem ndax doobu aadama bu ne rek da xalaat ni la dal ñooña noonu na maa dal ndax ñëpp a ci yàlla. Mm-hmm. kon su la yàlla dimbalee ci lu toll ni as tuuti rek bul fàtte kenn waaw man bu doon ñett ñaar dërëm yi ma am sax dinaa ko bokk ak nit ñi ndax man genre nit boobu laa. da ngeen a woo ñu ñëw yow. wala boog seeti nga ñenn ñi. day am loo xam nag des ko def di ko wax. Mm-hmm. waaw ndax su boobaa day mel ni yàlla taxaw. loolu de moom kontaan naa ci loolu laa doon xaar na <laughs> c'était la réponse que bi euh, vraiment mu nekk ko xam ne maanaam euh, fekk nañ ko fii euh, ci jamono màggal gan yi ñëw seet si la yàggul dara muy say mbokk di say xarit vraiment ñoom ñëpp ku ci nekk amoon nga yéene ak noo doon dikkee noo dundee woon journée boobu noonu waaw màggal gi moom. parce que da nga woote ñu wuy si la. te loolu yombut. déet yombul wax dëgg fa yàlla comme ni ma ko waxee woon rek ni sama xol dafa sedd ndax woote nit ñu wisal dafa neex te bi ma wootee gis naa ñëpp kenn desul kon nag ma leen di santaat ñoom ñëpp di leen gërëmaat di leen wax ni daal kontaan naa ci ñoom ma leen di baaluwaat ak si julli gi di leen baal àq ñoom ñëpp. Mhm. waaw alors euh, contexte jamono ji bëri nañ coow nit ñi jikko war nañ koo defaraat waxtaanoon nañ fii kii maanaam nit ki war nay soppi jikkoom euh, après ay coow bëri fii mais yooyu après noo noo càmba noo jàngatee euh, journée yooyu noonu passé xam nga ab jàmm moom ñun ay taal bi Serigne Touba lañ te fu ñu waaye fekk dañuy sant sant rek la def ndax mënuñu mhm. yàlla rek moo mën yàlla mën nag ñu ñuy kàttanal li am euh, solo nag ci àddina nit su fekkee yaa ngi ci yoon bëgg a dem da ngay xool fa nga jëm mm-hmm. waaye bul geesu waaw boo gëstoo rek lu bëri mën na laa. boo gëstoo lu bëri dara rëcc. Mm-hmm. Mm-hmm. li sa kanam rek ngay xool. waaw te li sa kanam moom. Euh, defar sa maam defaral na la ko. wax dëgg fa lépp yomb na ci ñun. Mhm. Mhm. alors looy looy looy looy conseil nit ñi nga xam ne parfois dañuy indi des accusations teg ko ci maanaam non seulement ko du wax ma pour yow rek mais jëmale ko sax ci keneen muy doomu aadama ni moom rawatina ci bis yu mel ni nga xam ne bisu bisu bisu jaamu yàlla la. bisu waarante la bisu wax lu baax la ci nit. looy mhm. wax ci ñooñu. waaw li ñun de li ñuy wax wax ji du mën a bëri. li ñuy wax rek mooy nañu gën a rafetal jikko yi rafetal xol yi ndax yàlla moom du fay wax mukk bàyyi jëf ku teg sa bopp foofu rek da ngay daal di nopp ci àddina mm-hmm. yàlla moom du fay wax mukk di bàyyi jëf boo xasee xam loolu nag da ngay sédd sa diggante ak suñu borom waaye sa diggante ak nit ñi sax jar nay bàyyi xel mm-hmm. waaye sédd sa diggante ak yàlla suñu borom mooy ëpp doole lépp mm-hmm. waaw après amoo ci benn compte benn jafe-jafe ci par rapport ak na ngay dundee Euh, d'après coow li fi jotoon a am yëpp parce que dafa baaxoo rek mbokk yi ñuy seetaan ñu ñu ñu ñu leeral parce que du du maanaam dañuy dañuy tontu wala dañuy parce que dañuy dañuy orienté nit ñi nga xam ne souvent ñi ngi wax ci loo xam ne maanaam fekkewuñ ko wala tamit amut naka su dul noonu kon nag loolu war na nit ñi soppi seen jikko di wax loo xam ne maanaam moom la ñu moom la ñu dund réellement te bañ a sos. loolu de man daanaka sax du ma ci wax du ma ci wax li ma mën a wax daal moo di. ñun ay taalibi sëriñ Touba lañ gëm sëriñ Touba xam li ñuy def xam li ñu bëgg ak fa ñu jëm. Mhm. am na loo xam nag kenn duñ ca fekk loolu daal mooy li ma mën a wax. Mhm. après gisee nga ak sa loolu dama ci wax loolu dama ci wax waaw dama ko ñaanal dama ni maa ngi koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér mhm. ndax kooku mooy sama lépp. Euh, mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen mu nekkoon Mame Faty Sy mais euh, benn question mu moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy sa continuité sa parce que yow yaa ngi yëngut ci business business boobu noonu ndax mën nga ñu ci dikkaat Mame Faty parce que dañu parce que nit ñee koy wax ñu ne sa waajur moom moo la boolee ak benn somme de un million je sais pas ci nga commencé di liggéey barkeeb la ñaan la wala da ngay ñaan xam ne yow dañ la jox pour nga war a liggéey da ngaa war a liggéey dundal sa société. li ma mën a wax daal mooy day am loo xam ne sama vie privée la du ma ci ñëw waaye li ma mën a wax daal mooy maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur ndax ginnaaw yàlla nu ma mel ñoom la. dénkaane bi dénkal dénkal de gars lay seetaan. <laughs> dénkaane bi moom wax joom du mën a gudd sax. mooy ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn muy góor di jigéen di mag di ndaw di sant nag sama doomu baay yi ndax aw ma seen fay ndax tey ku ñëw sama kër ku ne ci bëccëg wax dëgg yàlla xam ne seetaanuñ ma benn yoon waaw ren daal sama tabaski daal neex na lool macha allah mën na ne sa doom bàyyi yow daal jàpp nga yaa ci gën a neex la tabaski maa ci gën a neex la ñun ñëpp lu ñu fekk si waa <laughs> beaucoup mu nekkoon seen euh, ak 28 Pro TV ñu ngi àndoon nag ci maanaam présentation bi Sidi Diakhaté caméra bi Bekay Ndiaye Serigne Mbacke Fall euh, ci réalisation bi taala Ndiaye euh, Talla Samb ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci yeneen euh, jotaay yoo xam ne maanaam ànd ak yéen jërë ngeen